asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokki réew mi ñu ngi leen di ziyaara di leen ñaanal jàmm di ñaanal jàmm réew mi rawatinaakaay doomaanam yi nga xam ni ñu ngi ci biir réew mi ak ñi nga xam ni ñu ngi ci bitim réew di nuyu njiiti réew mi Mohamedoul Cheikh Al Ghazouani jëwrin yi ñu nuyu leen bu baax a baax di leen jaajëfal le secteur informel euh, aju waajur yi nga xam ni ñu ngi ci waar wi Euh, ci cundu waalo yële ñu nuyu leen bu baax a baax di leen sargal mbokk yi am di jàmm yi xam ngeen ni ñu ngi dëkkmal weeru koor mu doon weeru ngëneel mu doon weeru itam weccoo weccoo ci diggante doomu aadama yi euh, muy màndarga yu am solo yi nga xam ni euh, mi ngi samp ci diina lislaam ak i wareef yi nga xam ni itam moom la doomu aadama yi war a sàllool saa su ne Euh, mbokk yi am di jàmm yi ñuy rafetlu euh, seen teewaay ci top seen télévision Al Mauritania euh, di leen béggee yéen ñëpp fa tabarakallahu waaye làqu yi ñi ngi leen di ñaanal buur bi yàlla xaar de leen aljana firdawsi bi jaayil Mustafa al karim Seydina Muhammad mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci lopito yi bérébu fajukaay yi yàlla na buur bi yàlla fëgg seen bopp ngeen dellu seen jaboot bi jaayil Mustafa al karim Seydina Muhammad mbokk yëpp la ñuy ànd ñaanal jàmm ci réew mi fa tabaarakallaahu ak weeru koor gi ñu dëkkmal euh, waxtaan nag war cee euh, juddu euh, ñuy faral di teg loxo doomu aadama yi nga xam ni ñu ngi rek sàllook weer wi laxasoog moom di ci jëflante lu baax waaye itam di topp li nga xam ni moo jara topp doon koor gu baax fa tabaarakallaahu jëflante yu baax waaye itam lépp loo xam ni mooy indi Euh, ñaax mbokk yi ñu gën a defaraat toogaay yi ba tax na ma am fi aju ndaw boo xam ni euh, Ababacar Fall lañ koy wooye euh, ñu ràññee ko ci taxawaayam ci aju tout tànk tey nag ñuy waxtaanee aju ndaw yi ak koor gi Babacar Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuh aleykum salaam wa rahmatullah wasalatu wasalaam ala ashraf al anbiyaai wal mursalin wa nabiyina wa nura qulubina muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibina tahirin wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib hasbina allah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal masir mhm. wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib mbokk yi soppe yi am di jàmm yi gannaaw bu ñu sante yàlla julli sangu-sang yi sëlmal ci moom ak ay ñooñoom ak ay saxaabam di feddali suñu kóllëre di yeesal suñu cofeel di wéyal suñu mbégte di ñaanal yàlla ñi caabi féete gannaaw aji way dawlu yi ñi am jafe-jafe yal na yàlla saafara lépp moom mi gaaw ci aji saafara lu yàlla saafara mu saafara ba faaw allahumma amiin nuy nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni yaa ngi seq ak ñoom maanaam plateau bi mm. nuyu ñi nga xamante ñi ngi fegg ak ñoom ci wàllu xarale yi mm-hmm. di la ziar bu baax Ibrahima Idrissa Wade di nuyu waa réew mi di nuyu képp ku nuy seetaan ci waxtu bi mm-hmm. di nuyu ñëpp di wax taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa daafa lana wa lakum al ajr jërëjëf euh, Babacar Fall mbokk yi ngeen dégg noonu Euh, defe naa ni dugg bi am na solo waaye ñu dëkkmal koor weeru koor mu nekk weer woo xam ni fa tabaarakallaahu euh, weeru ngëneel la waaw mu nekk euh, weer woo xam ni ñoo ko moom ñun waaw ñu war ci jëflante lu bare buñ nee aju ndaw wax weeru koor waaye wax ji dafay faral di ànd ak artu waaw taxawaayu weeru koor aji ndaw yi ci weeru koor gi Euh, naka nga ko gisee ak euh, lan ngay digle. waaw Ibrahima Idriss ñu ngi lay jaajëfal ci laaj yu am solo yooyu. Hmm. mu doon ay fàttaliku yi nga xamante ni jaadu na. Hmm. ndax koor moom dafa am taxawaay taxawaay bi lan la bu ñu xoolee maanaam promotion la bu gàtt. Hmm. waaw lu gàtt nag. ba borom bi ne ay yaman maadudaat maanaam ay jour limitable la. rawatina li nga xamante ni am na ñu bare nag ci koor rek la ñuy jaamu yàlla ko ci la gën a jël seen taxawaay dëgg la sax mais koor tamit mm-hmm. école la bi nga xamante ni mm-hmm. boo ci amul njàngaan bi nga xamante dina mën a am sewegewaay ngir ëllëg mm-hmm. maanaam ndax fekke bi rek moo am solo wala yàlla may nga fekk ka nga war ko tal ko talle ko wax dëgg yàlla gis naa taxawaayu ndaw ñi léegi ñi ngi am taxawaay bu baax wàññi lu bare ndax gënoon na fi maanaam lëmbe ci wàllu ay violence ci wàllu li nga xamante ni dañuy maanaam ay damm-damm ay moo modu li nga xamante ni daal weeru koor dañu war a aj lépp mm. ndax weeru koor dafa am lu mu làmbaayoo mooy weer la bi nga xamante ni alxuraan mooy xaritam mm-hmm. ak di lépp lu baax loolu doon def nga gën ko yokk mm-hmm. ndax li nga xamante ni benn tiyaaba dañ la koy multiplier dafa mm-hmm. naa ne loolu lu jar am taxawaay la rawatina ci wàllu ndaw mu mhm. doon li nga xamante ni am na solo lool ndax dañuy gis léegi jamono yi ñuy dund wax dëgg yàlla bu koor ñëwee lépp day ni salaw mhm. maanaam lépp day ni tekk tekk waaw mhm. tekk boobu am na solo mais tekk boobu jàngale la tamit ndax comme fekk nga xamoo dëwoon ba xam daa ko fekkee nga jël leçon démb am na ñu ko fekke woon ren gisuloo leen wala déggatuloo leen waaw donc mu nekk sa mbokk ba sa xarit donc loolu dafa nekk li nga xamante ni nekk na jàngat waaw aadama lépp looy gëstu rek wala lépp looy dund da ngay yàlla jàng ko dafa am dafa am ñett ba ñeent yoo xam ni dama la koy limal mu yàgg ànd ak aju ndaw yi ñu yàgg ko seetlu benn buñ ne koor aju ndaw yi song géej bi yendu fa ba euh, tàkkusaan ñu ñibbi benn muy benn buñ ne koor di dinañ topp aju ndaw yi ñu nekk ci yenn ci ci bérébu carte yi mhm. carte yi wala yenn ci jeu yi euh, mu doon loo xam ni dañ ciy taxaw tuuti waaw buñ ne koor itam ñu bare dañuy wax dañ koy dàq waaye aju ndaw yi lañuy gën seetlu ñu bari yëngu ci weeru koor bi euh, booy wax lu mel ni loisir ak yoo xam ni amaana dañ ko jàppee dàq koor te ñu gën ko bari seetlu ci aju ndaw yi euh, lan ngay wax. waaw loolu moom defe naa loo dàq moom dàq nga ko. koor kenn du ko dàq da nga koy tatagal hmm. daat koy da nga dëkkoo xajoo dëkkoo saxoo ko hmm, hmm, mu doon li nga xamante ni am na solo ndax boo xoolee te loolu dafa bari ci àdduna bi parfois nga ni maa ngi dem wàññi heure bi wala maa ngi dem pour gagner temps bi fekk yaa ngi gagner li nga xamante ni xëy na tiyaaba juru fa wala meññeentu tiyaaba soxon soqali ko fa donc loolu li ko waral mooy maanaam dañuy gis ni ñàkk xam tamit mu ngi ci ak ñàkk xam parce que boo demee ba t weeru koor jot mun nga dem géej ubbi sa téere jàng yokk sa xam-xam loolu yu ñoom bokkul kooku du kooku du du dàq koor kooku yaa ngi recevoir koor bi koor dañ mm. koy recevoir mm-hmm. da koy tatagal ndax gan la gi nga xamante ni bu demee bala muy ñëwaat at maanaam dem dem géej bi mën na ne mën na ne jaadu na ça dépend ci la nga fay def ci la fay def ndax mm. boo demee tey géej jonoo géej yi ubbi sa expérience toog jaamu yàlla mhm. géeju yàlla la mhm. yaa ngi toog place bi nga xamante ni gisoo dara lu la déranger mhm. ubbi sa téere di jàng loolu yokku la yokkute la si yow ndollente la ci yow waaye bu dee wàllu moom fi nga waxee léegi wàllu plaisir ak wàllu maanaam divertissement moo la jub moo mooy sa orientation ci wàll boobu mm-hmm. comme ñun tey sur le plan artistique bu koor ñëwee dañuy jël lépp teg ko fële mm-hmm. nekk lépp jox yépp borom bi te bu demee tamit teewul dañuy xam lépp ak waxtoom mm-hmm. maanaam jàngat bi day gën a yokk ci bépp domaine carte bi nag mariage bi loolu jaadu na loolu toogaay guddi beeg taal lamp yeeg yu yooyu yëpp day jur li nga xamante ni parfois ngis nga xamante day biddanti tey am na ñu bari ay waxtu yi dañuy nalaw waaw parce que mënoo yow suba teel bëgg jaamu yàlla bëgg xëy teel yem ci bureau wala nga toog sa dimanche sa direction. Mhm. commencé di dajant. kooku mhm. mooy wan ni big joxe euh, loolu loolu aussi man lu may wan mooy. waaw daf may wan ni jeunes yi guddi gi la ñuy fonctionner. ci weeru koor guddi mooy fi nga wax quartier yeeg yooyu yëpp guddi gi lay gën a fonctionner heure bi ñu si bari 90 pour cent de la jeunesse ñu ngi nalaw léegi. Mhm. bu guddee ñu jóg am seen même bu ah wareef yi ak taxawaay yi dafay continuer esprit weer la ñuy am waaye du ñu am esprit bis. waaw loolu lu koy bis ak bu bu ñu heure bi bu ñuy bu ñuy dëgmal koor ak heure bu ñuy ndogu. ndax foofu rek la yem. non yemul foofu rek wàdd parce que boo xoolee maanaam dafa am ñi nga xamante ni ñi koy dëkkmalee dafa nekk ci wàllu seen maanaam. jumtuwaay mhm. ndax tey bu fekkente ni da ngay dëkkmal dara nii man xaaral ma dem waxuñu la nga dem géej toog fa ba waxtu bi jeex boo demee def fa quelques a nga dem nekkat ci leneen mhm. naafile wala nga julli wala nga wér loolu yëpp dafa bokk ci maanaam ganele koor koor dañ mhm. màggal ko tatagal ko bu ko defee moom ndax day ràmm koor day ràmm bu su penc day taxaw jëmmam naan borom bi kii daf ma daan jaamu dama daan yàq nalawam dafa ma daan nekkal yàlla nekkal ko tey yàlla dalay lay nekkal donc lu waral loolu mooy da ko joxoon sa bopp koor day wax jëmm la. Mhm. donc nag gan bu ñëwee ci yow da am nooy dem ak moom xam lépp ci. lan ngay digal aju. jamono bi aju aju jeunes yi. aju ndaw yi ci weeru koor waaw li mhm. mooy maanaam ñu gën a am taxawaay. Mhm. ndax bu nu nee jeune ñun ñëpp ay jeunes lañu. donc fàttaliku lante la. ndax nit léeg nga wax ko dara fekk moo la ko gën a xam. waaye fàttaliku day jëriñ jullit yeneen bi daan na ko wax. fa zakkir fa innama zikraa tanfaul muminin gars yi nañu fàttaliku lante ndax fàttaliku lante dina jëriñ jullit. léeg-léeg nit dëkk si ñu koy fàttaliku. Mhm. da ngay gis ñi nga xamante ni wàdd dañuy nekk bu koor jotee daal maanaam si dañuy gën a jaamu yàlla ngi fi bu nekk. Mhm. koor dafa nekk école. nekk jàngale waay nekk li nga boo ci amul leçon dootoo ko amati ci àddina rawatina nag comme li nga wax lépp loo ngay dégg ay bal jàkk yaa ngi dégg ngay dégg ay place comme yi nga wax quartier yi bagage mm-hmm. yooyu yooyu lu ko waral yëpp mm-hmm. fréquentation yooyu yàlla nekk fa yàlla dem nekk fa ci milieu commentaire la rek mm-hmm. mais li am solo mooy weeru koor école la da a yokkaat sa jàng ngir nga gën a am mujj rafet ngir ëllëg ci biir dañuy bare di gis mbokk yoo xam ni euh, naam euh, ñu ngi woor mu am solo lool comme ni nga ko waxee léegi waaye dañu ci boole di jëflante ak euh, ñi nga xam ni ñooy néew di doole yi jëflante dëkkandoo yi Euh, boo mooy taxawalal Jokteef fii donte ne aji ndaw la hmm, euh, <laughs> euh, addina bi moom dañ ko dañ dañ fi yàgg a nekk war ko war ko war ci jëflante boo mooy indil ñi nga xam ni mooy fànnu dimbalante ci weeru koor ci dëkkandoo yi ba ci am di jàmm yi rawatina ak miskin yi lan nga may wax waa loolu dafa nekk lu am solo ndax nee naa la lépp loo doon def ci lu baax weeru koor nga ko war a tripler ndax fayu weeru koor nuróowul ak benn payoor ci yeneen weer mm-hmm. maanaam payoor bi lay borom bi di fay li nga mm-hmm. xamante ne imagine toi vox mm-hmm. li nga xamante ni yàlla mooy jóg di la ko fay bokkul ak li nga xamante ni malaaka la koy fay wala sunu borom jox ko ni la joxal ma diw mais li nga xamante moom moo la koy fay sans intermédiaire donc loolu du du yomb kon nag yow tey lu baax loolu ngay def di diggante di jàppalante xool ñi nga xamante ni mu doon surprise nga def ko ngir yàlla rek a tax du ngir ñu ay bagages yooyu quoi. Mhm, mhm. Ah, nga def ko rek a ah, tax. ah kon film bi da nga ko ci taamu. waaw parce que dañuy def pour ngistal def nga gis dara mais ngistal la ah, def def def defu ngistal. non waaw dafa am def lan moo ciy rax lu ciy rax ba ñuy ràññee ni ngistal la. li ciy rax mooy maanaam dañuy bëgg ñu naan xoola diw wala moom de moom xoola lu mu def nii daawu ko def wala lii wala moom moo fi mën. Mhm. yooyu wala muy wut dara moom ci gànnaaw ngir ëllëg. Mhm. maanaam mun na rax li nga xamante ni dafa am lu mu ciy wut waaye booy def da ngay def ngir yàlla rek a tax ngir yàlla waaw ndax mhm. nee nañu defal lu baax sànni ko ci géej gi te baram géej gi am na mbaalam te bu ko mbaalee fay la sa mbaal mhm. li waral loolu mooy doomu adama yi ku nekk ak ni la yàlla bindee léeg-léeg nag nit di def dara pour jàngale ci pour fàttaliku ci keneen mu war a def loolu ndax nit day fàtte waaw moom nag def lu baax amul heure moom lañ doon waxtaane sànq boo xoolee am na ñoo xamante ni bàyyi ba bi ñu jéem a am taxawaay pour jéem xool seen dimbal bu takku ñu defal ko ñi ngi ko war a defal loolu jaadu na. Hmm. waaye nit ñi bokkuñu. waa parce que am na euh, boo gisee mbokk yi nga xam ni euh, amaana dañuy xool ba njeextal li hmm. euh, fukki fan yu mujj yi xëy na problème mu moyen la ñuy xool xam nga bëreet bi moom bëreet bi song song ko ak doole. Hmm? <laughs> am na ñoo xam ni fa tabarakallahu macha allah dañuy dañuy dañuy def seen doole ci ci weeru koor gi. ci ñoom ba ci ñi nga xam ni ñooy néew di doole yi. ah loolu loolu am na solo mais aussi am na ñoo xam ni dañoo am esprit bàyyi ba fukki fan yu yu mujj yi parce que boobu ñu ngi wax ne euh, xëy na doole yi mën na mën na wàññeeku ci ci dorteelu koor gi ba ñu ba foofu boo day am impact pour ñoom waaw est-ce que est-ce que gisoo loolu ak ñoom ci waaw loolu day am solo ba tey ci wàllu njeexantal boobu day am solo waaye lépp rek ci wàllu maanaam booy def dara tamit lu baax amul heure waaw lu baax amul heure booy hmm. def nga def rek bañ di déngi-déngi léeg-léeg nga dem léeg-léeg nga ni xaaral ba lii fekk leneen fekk la ci hmm. balaa caa rek li am solo mooy booy def nga def rek te ku nekk nag ak ni la yàlla bindee comme li nga wax hmm. mais wàllu dimbalante xool ñi nga xamante dañu néew boobu mënu la ko mënu kenn mënu ko fay jox nit benn tàndarma mu dogoo ko rek defe naa ni mu ñaanal la loolu yëpp ay baaxantal la di jàppalante ci wàllu yooyu dimbalante boobu dafa am solo ndax tiyaaba bu rëy moo ci nekk même boo ci bokkul sax yow mi bokk ci wàllu ñuy servir da ngay bokk ci tiyaaba bi Babacar Fall la ñu jàkkaar lool mu eh. doon aji ndaw boo xam ni dégg ngeen ko léegi dafa ni euh, su weeru koor gi jotee dañuy summi eti ah weeru koor gi mm-hmm. boobu yaa mooy bëgg wax lan waaw boobu maa lay bëgg wax ni maanaam lépp ñu jëbal ko li nga xamante ni mooy weer bi ci wàllu màgguwaay bi nga xamante ni maanaam comme ñun tey mm-hmm. dañu nekk ci wàllu ah, lan moo tax ngay summeeku summeeku ànd maanaam loolu dafa fekk dañuy taral koor gi weer bi dañ koy teral màggal ko jox ko lu mu moom en tant que jeune en tant que panafricaniste. Mhm. en tant que artiste. artiste waaw ma bëgg a wax artiste. Mhm. Euh, bu weeru bu ñuy dëgmal weeru koor day dindi casquette artiste bi ànd ak weeru koor bi. waaw c'est-à-dire dafa mënul ànd. non weeru koor dafa am lu mu ànd dafa am li nga xamante ni gis nga gis nga sunu borom day jàngale fu ne. Mhm. gis nga loo gis dafa am congé. weeru koor mun nga liggéey mun nga bind say texte mun nga liggéey garder donc voilà mais weeru koor da nga koy wormaal. weer la bi nga xamante war warmaal ko sa biir kër warmaal ko sa penc bi. da nga ma bëgg a wax àndul ak yenn ci oh, ci mbiru artistes yi. comme lan àndul maanaam comme tey jii xam nga tey boo nee dangay def benn boo nee da def benn plein air wala nga am looy def xam nga jaaduwul. Hmm. mais bu fekkee sax da nga koy def dafa am milieu boo koy defee maanaam bu dee ay tagg yenente bi ak li nga xamante ni c'est historique. Hmm. nga xamante ni c'est appréciable. Hmm. ci wàllu diine lu confortable ak religion bi day am solo. mais li nga xamante ni dafa dëppoowul loolu mënul mënul dem. Mhm. toujours dañu war a xool li nga xamante ni day dëppoo aspect la bi nga xamante ni dina la may waay pour nga mën a am sa tiyaaba ngir ëllëg ci biir. mais lan moo pour yow lan moo euh, xam nga yow yaa ngi yaa ngi de yaa bay sa waar. Mhm. bu jot nga jàkkaarloog doomu aadama yi. wane ni am nga noo taxawee ci diine l'islam. Mhm. ci diine bi. Ah, am na loo ci taxawee. loolu ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu. mais lan nga jàpp ni artist moom la war a am ci apport apport bu muy indi ci weeru koor gi. en dehors de la musique qu'il fait wala yenn yi parce que wax nga fi léegi waxu summi sa casquette. waaw maanaam ànd ak ànd ak weeru koor gi lan nga gis ni artiste moom la mën apporter weeru koor. ak loolu maanaam lu baax li nga xamante ni am nga ko pour jàppale ci ay néew doole. Mhm. nga def ko ak li nga xamante ni mun nga ci taxaw pour jàppale doomu aadama ci terrain bi. Mhm. loolu yëpp ay tiyaaba la. Mhm. parce que lépp li nga xamante ni da lay yokk tiyaaba parce que problème bi du fii fii àdduna la rek. mais a na li nga xamante ni day jaayu ci yow. maanaam boo nekkee jullit da ngay jullitee. rawatina nga nekk doomu jullit donc dafa am li nga xamante dafa dëppoowul am li nga xam dafa dëppoo hmm. li dëppoo mooy boo am bu fekkee ni suñu borom may na la sa wërsëg nga partagé ko ak ñi nga ko war a partagé def ci lu baax xam nga di siyaare mbokk yi seeti lu baax dem ci càkk yi di julli di njàng alxuraan loolu dafa bokk ci lu am solo hmm. waaw am na ñu bare dañuy nekk artiste mais duñu dugg ci dañuy caché wu mais un artiste warul caché wu war na génn sànni ay message mhm. parce que bu dee jullit nga am na loolu yàlla dénk nga génn jox ko askan bi mhm. parce que li ñuy def léegi nii si la dimension religieuse mhm. mais particulièrement mun na nekk si la dimension artistique artistique waaw parce que dafa nekk li nga xamante ni lu confortable la ak diine ji ak soññ xam ne ñun ay doomu jullit la ñu jërëjëf donc am na lu ñu yàlla dénk am na lu ñuy wékk am na li nga xamante mënoo ko wékk mun nga nekk tamit di màggal yerante bi di bind say texte ci lu jëm ci yerante bi ak weeru koor comme li nga wax sànq am na ki nga xamante ni dafa way yëpp ay jàngat la pour mhm. nit ki tamit am message bu mu mën a apporter. Mhm. pour famem ak ngir ëllëg ci biir mu am. waaw parce que ay génn la et puis euh, marketant yi. Mhm. marketant yi. voilà euh, euh, da nga da nga nekk di wax ne peut-être weeru koor bu mu nekk période trêve pour artistes yi. war nañu mën a xool naka la ñuy méngale seen art ak weeru koor gi ba. ba mu am impact ci ñenn ñi parce que am na solo am na am na solo mm-hmm. euh, mooy ki ma euh, ki ma ki ma ki ma jàkkaarloo loon euh, ci ay fan yu néew mm-hmm. artiste la comme yow comme yeneen artistes yi mais moom dafa ni ma weeru koor bi biñ koy dëgmal dafa xalaat lan la war a mun a def mu teg musique bi fale parce que àndul ak weeru koor bi effectivement ah mais dem na ba xalaat ne ah, mu jukki dara pour wëy ramadan wëy weer wi ci kàllaama boo xam ni moom la namp loolu incha allahu rabbi nekk na koo xam ni dinañ ko joge trop parce que am na solo waaye yaa ngi bëgg a wax ni artistes yi euh, euh, lu ñëw rek war nañu mën méngale ah seen liggéey ak euh, jamono yi ñëw yi ak xew-xew yi ñëw yi comme weeru koor ngir rek participer ak askan wi loolu nga loolu nga nekk di wax. waaw loolu ba tey day bokk ci wàllu maanaam lu lay soqalee ko yow mi doomu aadama ji mhm. ndax loo gis ne mhm. li nga xamante ni mooy ci wàllu diine ji mhm. ah, li nga xamante ni maanaam comme ngay soññ tey di wax parce que tey mun nga nekk maanaam nekk ndaw gis li nga xamante ni jaaduwul nga woo leeral xam ni lii li nga xamante ni la keneen mun na ci jël jëluñu ci fàttaliku lante yooyu lépp mu ànd ak li nga xamante ni maanaam day jàngale travers tey boo xoolee maanaam la communication lépp tey mi ngi ci nga jàng xool li nga xam da lay yokk daal mhm. parce que weer bi nga xamante ni lépp lu lay yokk di la jural tiyaaba mhm. door de l'artiste mhm. lépp lu la yokk di la jural tiyaaba rek war nga ko fàggandiku ci jamono bi ndax jour limitable la comme ni ko borom bi waxee ay yaman mhm. maadudaat mhm. donc lu wolof naan loo séntu tàggu na la mhm. nga jéem ci góorgóorlu ndax xamoo dëwoon ba xam di ko daa ko fekke xamoo tamit ba xam yow di nga jeexal ko dëgg la xamuloo ndax daaw am na ñu fi nekkoon ren nekkuñu fi te ñooñu ñun liggéeyuñu dara ba yàlla bàyyi jàngat maanaam lu ñëw rek. Hmm. bés bu ñëw war nga am jàngat daal. jàngat waaw am na solo dafa am solo. am na solo am na solo kàddu yi nag mooy ndaw ñi. Hmm. dañu war a am taxawaay gën a am taxawaay. Hmm. waaw nag gën a maanaam jax waaye ren wax dëgg yàlla gis naa ndaw ñi. ñi nga am taxawaay xam xam nga sax jaamu yàlla. ci gën taamu bu timis jotee ku nekk yaa ngi sa waxtu julli ñi kii. mais am na ay boy yu ndaw yi nga xamante ni ñooñu dañ dañ laaj seen mag yi wala seen waa kër di leen soññu tamit. ndax ñooñu ëllëg. lan nga seetlu ci ñoom. waaw ñooñu ba ñoo ëpp bruit bi nga xamante ñi ngi koy yi nga xamante ni maanaam di jéem a gis jàkk bi julli mhm. nga gis ñi nekk si ay planétaire di yuuxu wala si quartier yi loolu baaxul waxtu julli bu jotee doomu jullit mhm. xale yëpp dana war a dem jàkk julli ba julli bi jeex ba naafila bi jeex mhm. d'accord bu fekkee boo julli jiwul tamit nga noppi boo julliwul ah, di dégg ay bal donc sur le plan sportif loolu tamit dafa compatible ak xale yi nag duñu xaleel parce que ñi ngi jàng parce que football bëgg nañ ko mais tamit julli ji weesu sooy promenade nga daw boo xamee la boo buggee nga jël piste bi lépp avec la discipline. Mhm. donc jërë ngeen jëf euh, mbokk yi jërë ngeen jëf euh, Ababacar Fall ngeen jàkkaarlool euh, di waxtaan ak moom ci taxawaayu ndaw yi ak lépp loo xam ni moo jëm ci yenn ci comportement yi ci weeru koor mu am solo lool ñu ngi jukki taxawaayu ndaw yi léegi wax ci yenn béréb yi waaye itam wax ci yenn taxawaay yi ci dimbalante ak linu nu mel. mais Babacar dañuy faral di gis kuréelu ndaw yi. Mhm. kuréel wi. ay ndaw yoo xam ni dañuy sanc ay kuréel ci mbedd yi wala ci yooyu yëpp ci phénomène u dàq koor mais euh, euh, mbokk daf ma daan wax foo gis ñaar ñu toog mhm. laam-laame am am na lu ñuy lu ñuy jëflante ci kàllaama euh, ñu gis ne am na kàllaama yoo xam ni ñu ngi koy faral di seetlu lu mu gën a bare ci weeru koor gi maanaam ci ci fànnu jëw ak wax loo xam ni sa yoon lu dul sa yoon ndax taamu nañ ko ak yan alerte nga ci def. waaw loolu moom tàmmuñu ko ndax di tàmm même bu dul weeru koor sax yoolu moom da wax dëgg yàlla bokkul ci li nga xamante ni di nga am payoor borom bi mm-hmm. ndax weeru koor lu tolloog weeru koor ngay nekk maanaam ci li nga xamante ni sax même bu dul weeru koor jaaduwul mm-hmm. waaye weeru koor jot ngay jëw di rambaaj di wax li sooy nekkul mm-hmm. di toogaale maanaam loolu yàlla jaamu ko li am solo mooy nga toog sa kër nga wér di say wér di def say jàmmu yàlla yu dul jeex loolu moo ëpp solo sunu borom jéggal say bakkaar yoo tay ak yoo tayul moo gën ngay nekk ci ci dimension wu jàmbur loolu moom même bu dul weeru koor sax dafa jekkul ci jullit te dafa bare nag li nga wax dafa bare day mhm. rawatina nag sunu mbokk jigéen yi mhm. ñoom ñoo ëpp la ñuy toog di wax lu ñor lu ñorul ci seen milieu yi donc loolu jaaduwul mhm. nit ki moom weeru koor daal moom yaral sa gémmil yaral sa lamil yaral sa cër nga gën a am comportement bu am wegewaay ngir ëllëg ci biir maanaam nga nekk royukaay waaw parce que euh, jëw coow la. waaw coow la yaa ba nga koy def. yaa ngi ba nga koy def wax la nekk. waaye wax ju jël jur coow. amaana ki ngay wax ci moom. Hmm. yaa ko ëppale foofu te lijjantiwuloo sooy bos. Mhm. da ngay bàyyi ki nga gis ku bàyyi paanam di toppatoo bërigo jàmbur. Mhm. waaw maanaam yaa ngi paanu jàmbur yaa ngi bàyyi sa bërigo. Mhm. donc mun naa am yaa moo la gën jël bakkaaram bu ba supee ci jotee ñu jël sa tiyaaba di ko ko jox bu jeexee ñu lay sëf ay bakkaaram loolu lu ko jar. waaw loolu dafa jar a baw dafa jar nit boo di wax daal waxal ci kalamam. weeru koor nag dafa nekk weer gi nga xamante ni lépp dafa war a nekk jaamu yàlla. même bu dul weeru koor sax jëw ak tooñ ak li nga xamante ni làmbaayul ak diine. loolu amul payoru borom bi. na toll ñu weeru koor gi ko dëgmalee ba léegi lan nga seetlu ci réew mi. waaw loo sentir ak noo ko gisee. waaw weeru koor gi moom li ma gis ba léegi daal mooy sant yàlla weer bi weeru xewal la ndax weer bi nga xamante ni maanaam nañu gën a jekkalante si mbaalu jàppalante waaye gis naa ni daal borom bi. xam nga yaa ngi taxawal weer wi. waaw gis naa ni borom weer bi ci boppam ak ngëneel yi ci nekk yaa ngi koy taxawal. Mm-hmm. waaye man loo loo loo jot dund. waaw ci weeru koor gi. xewal la laa ci waaw loo ci jot a loo seetlu. ak loo mu yokk ak mm-hmm. laa ci xewal ci gis. Mm-hmm. ak taxawaay bi nga xamante ni wax dëgg yàlla ku nekk yaa ngi liggéey sa côté lu baax mhm. waaw lu waay liggéey yal na la ko yàlla fay amiin waaye gis naa ci daal koor gi koor gu am ja am bu mucc ayib la mhm. fekk bi rek moo am solo mhm. waaw ndax du ñu gan ci koor wax dëgg yàlla chaque jeudi lundi léeg-léeg ñu woor donc dañuy ni ñu naan entraînement avant donc le combat. Mhm. donc loolu day tax ni tey mel na ni koor gi moom wax dëgg yàlla tàmm nañ ko. Mm, di ñaan di ñaax ñëpp rek ñu xam ne du koor du weeru koor bu jotee rek si nga war a woor. Mhm. loolu da war a tàggat sa bopp ndànk-ndànk weer bu nekk nga laal ci ñaari fan wala ñetti fan les jours blancs yooyu. day am solo waaye nag li am solo rek mooy gis naa ni daal xewal la jàmm la mhm. yokkute la si li ma jotagum gis di ñaanal yàlla ñëpp ñu yeggale na yoon yàlla may leen nangu seen koor nag ak seen taxawaay te xam ne weeru alxuraan la donc même teg alxuraan di ko déglu. Mhm. donc weeram la tamit. dana ko dolli diisal ci comportement yi ci colin yi surtout su aju soxna yi tu tànk yi. waaw loo leen di digal. waaw ñu moom wax dëgg yàlla ñu ngi soppeeku soppeeku yi nga xamante ni yu saxul. Mhm. waaye teewul nag ni nga xam ni weeru koor moom. du weeru dàqu koor comme tu laa dit. Mhm. léeg-léeg nga gis ay milliers yi nga xam loolu si waajur yi la. ñooy maanaam dañuy tàyyi di soññi seen njaboot ci li nga xamante ni. mooy Euh, pour ñu tegu ci yoon bi nga xamante ngir ëllëg ci biir ndax xaleel xamul dara waxin la waaye kuy jàng defe naa xam nga dara waaye teewul ñu gën a am taxawaay bi nga xamante ni ak yëre yu jot booy génn nga muur sa bopp mm-hmm. loolu am na solo trop ndax weeru koor dañ koy màggal bu dul weeru koor tamit mun nga ci mm-hmm. am leçon mm-hmm. ba am ci jàngat bu weeru koor jeexee tamit nga amaat waaye ci loolu ngir ëllëg mbokk yi am di jàmm yi ñu ngi nuyu artiste réew mi yëpp di leen ziyaara ci weeru koor gi yàlla na leen buur bi yàlla may weeru koor jàmm di jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad ñu jàkkaarloo ci ak kenn ki nga xam ni Euh, Abdoulaye Aboubacar Fall di ko béggee bu baax a baax moom la ñuy wax fils d'Afrique mu lëmbe réew mi ci fànn yu bare yu nga xam ni taxawaay la waaye itam euh, génn itam réew mi ndax œuvre yu am solo yi nga xam ni dimension africain fils d'Afrique ci weeru koor gi ci ndorteel li di la jaajëfal sa télévision Al Mauritania lan ngay wax mbokk yi waaw di nuyu ñëpp rek di nuyu vraiment sama jarbaat bi jaar si li ma sol macha allah di ka sant bu baax di ko gërëm ba di gërëm yaayam tamit soxna a Diop mm-hmm. di nuyu képp ki nga xamante nag yaa ngi nuyu yaa ngi déglu di sama jarbaat ju baax euh, Ibrahim Fall mm-hmm. dëgg yàlla ba mu ñëwee Fatick moo jaar ci affaire bi quoi. Mm, jërëjëf maa ngi koy ñaanal di ñaanal yaayam sama jarbaat la. jërëjëf di ñaanal waa këram yëpp. Mm-hmm. di am kontaan nag. Mm-hmm. waaw di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di la nuyu yow tamit. di nuyu képp nga xamante ni yaa ngi teewlu ci jamono bu tedd bi. di la ñaanal yàlla saxal seen liggéey yow nag ñi ngi lay sant la gërëm. parce que yaa ngi sa liggéey yombul. waaye tout le temps ñëpp a ngi lay gërëm. Mm. daal lu ñëpp wax mooy dëgg. Mm-hmm. waaw ni nga meloon démb nga mel tey. donc jàppoo nit ngir dara lu dul pour yaatal. donc loolu mooy àdduna. yombul nag mm. waaw yombul ndax nit nga nga liggéey lu baax ba jóge fi hmm. ñu lay wax wax yërt hmm. dafa neex waaye ñu ni diw ma ngoon ca bërëb nekkatu fa bu ñu waxee sutur ñu ni fàtte leen kooku donc loolu du payoor kon yal na la yàlla saxal yàlla barkeel la di nuyu ñëpp nasalullah an yataqabal minna wa minkum salih al amal allahumma amin fi amanillah ba bikum mbokk yam di jàmm yi euh, Ababacar Fall di Fils d'Afrique moom la ñu toogaloon di waxtaan rek di jukki ci fànnu ndaw yi nga xam ni gis-gisu Ramadan ak euh, wareef yi taxawaay yi jokkalante yi dimbalante yi itam euh, comportement yenn yi nga xam ni itam am na solo bu ñu demee ba ci béréb yi nga xam ni amaana xale yi dañ fay dàqe koor lu ci mel ni plage bi nu ñu taxaw xool bu baax a baax comportement yi ak lan lañ fay jëflante am na solo lool ñu moytu géej gi itam ndaxte bari na mënin te wax dëgg yàlla mbir boo ci nekkee euh, mu tax la jóg nga def juróom-benn wala juróom-ñaari kilomètre fii ba euh, plage bi euh, yaakaar naa ñu war nañu sàmmonteeg wareef yu baax yi nga xam ni moo ñuy muccloo ëllëg bi jaayil Mustafa al Karim Seydina Muhammad mbokk yi am di jàmm yi ñu jaajëfal leen di leen ñaanal jàmm seen télévision Al Mauritania asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuhu